ci weeru sell wi di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbakke xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal njabootu Xaadimu sol gépp di ci tegit sëriñ Cheikh moom sëriñ soxna bu Mbakke mi nga xam ne mooy kilifay barab bi ndax ñu ngi fii ci pencum sëriñ soxna bu Mbakke ni ñu ko baaxoo di def at mu jot saa bu weeru safar wi teroo ci jataay yu am maanaa yi nga xam ne nii daayira bi dina ko fi amal di tànn ay boroom xam-xam yu fasantikoo ak ay tem yu am maanaa ngir dundal weeru safar wi jëm ci bis bu mag boobu yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon ñuy siyaare bu baax a baax sëriñ Cheikh Say Mbacké ak njabootuk sëriñ Sooy bu gépp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo yi sëriñ Abo Madiana Mbacké mi nga xam ne moom ak daayira bi ñooy organiser jataay yu am maanaa yi ak boole mbokk yi nga xam ne nii ñoo ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu dellu siwaat ni ñu ko baaxoo di def rek ni ma leen ko waxee léegi ci weeru safar wi ci waxtaan yu am maanaa yi nga xam ne ni moom la ñu def fii ci pencum Serigne Souhaïbou ñu di ko ñaanal sunu borom fayal ñu ko dolli ko ngërëm jataay yooyu nag tey ñu tànn ci kenn ci borom xam-xam yi ak ponk bu am maanaa boo xam ne dafa méngoo ak jamono ñu war cee waxtaan ci taxawaayu lislaam saa bu xew-xew yu mel nii amee muy mbas mi nga xam ne dañuy ñaan sunu borom jële ko fi ci àddina bi yëpp nag ba set fi wecc tey ñuy dalal Serigne Fallou Bousso Tamba yaakaar naa ne moom kenn dootu ko présenté yàgg nañoo miin ay jataayam ci lépp loo xam ne nii dafa jëm ci lislaam rawatina ci jaar-jaaru Serigne Touba Chamat Bamba Khadimu Rasul ponk bi nga xam ne nag moom la daayira bi tànn ngir mu waxtaane ko mooy xew-xew yu mel nii bu mësee am ci jamono ñooñ lislaam nan lañ ci taxawee woon waaye lislaam mooy yoonu murit jàpp naa ne it kenn mënul waxtaane lislaam te waxtaane woo Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba Rasuul ndax xew-xew yu mel nii fekk na ko fi nan la ci taxawee woon ba ci jàmbaar ji nga xam ne nii moom lañ doon tudd léegi di Sëriñ Muntaxa dinañ ci yegg si moom ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko en tant que kilifa en tant que responsable nga xam ne naka jekk l'islam dafa mës a am njiit am responsable nga xam ne bu xew-xew amee rek danañu jël matukaay yi ñu ci war a jël yépp nag kon dañu jox kàddu gi sëriñ Fallou Bousso mu nuyoo bu ko defee rek ñu daal di dugg ci waxtaan wi sëriñ Fallou bismillah bismillahi rahmani alamin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 bokki jullit yi ñu ngi nuyu mboolem ñi teewlu ñëpp di ay bokki jullit di ay bokki taalibe ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa yee salaat suñu jaayante ci Cheikhul Khadim ñu ngi nuyu ñëpp di saf sama nuyoo ci nuyoo sëriñ Cheikh Amar mi nga xam ne moo ubbi moo njëkk jël kàddu te ubbi ubbi bu rafet tàmbalee ci ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi toogee jataayu Cheikhul Khadim ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér ba mu àggale ay yéeneem ak i ci toolub sëñ Tuubaa nga xam ne mooy lislaam te ànd ko mboolem nag ñi ko bokkal ñëpp di sëriñ bi waaye ñu beral ci nag ni ko sëñ Cheikh defee rek ki nga xam ne mooy kilifa ak ati ñu nekk tey di Cheikh Ahmadou Mbacke moom Cheikh Abou Madiana Chouaïbou ak mboolem njabootu sëriñ Chouaïbou gépp nag di leen ñaanal itam yàlla yàggal leen fi te wéral leen di nuyu suñu bokk yu baax yi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bu am solo bi liggéeyu xam-xam bi liggéeyu njàngale wala boog tasaare njàngalem Cheikhul Khadim di waa daayira Qurratul Ayni nga xam ne at mu jot mm, diirub ay ay ay ay at a ngi nii ñuy def saa boo xamee ne safar bi teru na <clears throat> ñuy taxawal ay jotaay xam-xam di ci yeete di ci jàngale ci loo xam ne ñu ngi ko tuddee jaamiatu màggal muy université du màggal kon ñu ngi ndokkeel ñëpp ci safar boobu di ndokkeel ñëpp ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñu ma di bis màggal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yóbbu ñu ceeg jàmm ñu fekkee ko te tal ko te lépp luñ ci def itam daje ceeg li nga xam ne mooy ngërëmal sëriñ bi te defe ko ni ko sëñ bi diglee itam nag ndax loolu mooy tax ñu mën ci daje ngërëmam kon sëñ Cheikh ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte ci bokk ak yow bi yow namoon nañ la lool ngay suñu waaye di kenn ci ñun kon am nañ mbégte bu baax a baax di nuyu ñu fi teew Eh, dajeeg yow ci jataay yaakaar naa ne yàgg nañu koo def waaye waxtu wu nekk rek dañ ciy dolleeku bu baax a baax di rafet njort it ci thème bi nga xam ne dafa méngoo ak jamono jamono soxla ko lool dañ war ci waxtaanee ngir gindi xelu askan wi ba ñu xam ne eh, xew-xew la boo xam ne nii daanaam bu amaan nan lañ ci daan taxawee te ay jullit moom l'islam mooy seen référence ay jullit Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mooy seen référence kon Serigne Fallou laaj bi moom mooy mbas mi nga xam ne moo lëmbee àddina bi laay wax te ay weer mu dox ba yegg si ci biir réew mi ndax daan na am ndax mës naa am bu amoon nan la ci ñooñ lislaam daan taxawee loolu yaakaar naa ne mooy laaj bu njëkk bi nga xam ne mooy dugal ci jataay bi bismillah Eh, macha allah sëñ Cheikh jërëjëf laaj boobu nga laaj mooy li nga xam ne moo moom lañ bëgg lay taaye allah waxtaan wi tax ni nga ko waxee tomb bi dafa jëm ci waxtaane eh, li ñuy tudde mbas wala muy nattu wala tawat jàngoro ju tasaaro yoo xam ne dafa gane si jamono nekk la ci jullit war a taxawe waaye nag rawatina naka la ko Cheikhul Xadim daan daan daan daan daan taxawoo ak it naka la ci daan eh, yeetee ak ak man njàngale la ci def njàngale moo xam ne du ko jëlee ci njàngaleem lislaam mi nga xam ne eh, moom la sallallahu alayhi wa sallam andi woon loolu muy lu am solo lépp nag ñu di ko nitoo ci taxawaay bii nga xam ne moom la suñu kilifa gu baax gii Cheikh Mamadou Mountakha taxaw te ñun ñëpp ñu tekk suñu bët àdduna bépp seede ko muy taxawaay bu am solo boo xam ne bu mat a waxtaane la wax dëgg yàlla kon ñu ngi ñaan ba dañoo def dara ñu ngi ñaan suñu borom barke màggal gi mbas mi tuxoo ci àddina tàmbaleeg suñu réew mi ni sëriñ Touba ñaane ci Touba ñaan ne yàlla maa ngi ñaan nga dàq fi lépp luy mbas baatu mbas la jëfandikoo eh, ba def ba àggal def ko alif ak laam eh, maa ngi ñaan nga dàq ko ci Touba ak lu aju ci Touba te bu nee Touba kon mooy Sénégal eh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi barkeelu ci ñaan googi di wax wan fil wabaa wal balaaya kullaha wa tayyib shurbaha wa akla wa aklaha Euh, bayit bu am solo la woo xam ne du ñàkk ñu incha allah jël siwaat ci ndax euh, am na ay ay ay ay ay sew-sew euh, li nga laaj nag muy lu mel ni su ma saan a am mbas mbas muñ ko waxee mooy tawat joo xam ne dafa ñëw daj jamono wala mu daj àddina nga xam ne yemul ci benn gox yemul ci wenn xeet yemul itam ci ñenn nit rek waaye dafa daj am réew wala mu daj ay réew Eh, ba noppi itam nag eh, àgg ci mën a jël bakkan bakkan doomu boobu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo fonk lool ba tax eh, diine mi nga xam ne moom la yàlla wàcce jaarale ko ci ay yonantam mu bokk ci yi ko tax a jóg moom diine mooy sàmm bakkanu doomu boobu moo tax lislaam yittewoo lool lépp lu jëm ci wàllu tawat ak wàllu fegu <coughs> ak wàllu faju lislaam da ko yittewoo Euh, mboolem ñiy jàngale usul xam nañ ne am na juróom wala juróom benn yëf yoo xam ne euh, diine dafa ñëw ngir sàmm ko te yooye bokk na ci bakkanu doomu aadama ni boroom xam-xam yi tënke diinun fa nafsun summa aqlun nasabu maalun ila daruratin tantasibu diine ci boppam euh, diine diine maanaam dafa suñ borom dafa daf ko koo fonk ba tax mu di ko sàmm sàmm gi mu koy sàmm moo tax mu mu mu mu wax ne koo koo xam ne duggoon nga ci diine ba génn ci te tey ko buñ la bu buñ la tuubloo ñetti fan te nanguwoo dañ lay xadd dañ lay teg géttanub euh, ray muy kii ñu tuddee ki ki nga xam ne moom la ñuy tuddee almurtad mooy ki duggoon ci diine ba noppi génn ci loolu sàmm diine tax waaye bi mu tuddee diine ba àggal bakkanu doomu aadama la ci teg nga xam ne bakkan mooy mooy ñëw ci ginnaaw diine ci ak am soloom ndax euh, bala ñu wax diine faaw nit ki ne fa bala nga ne naam ne fa bala ngaa mën a jaamu yàlla jëfe ay ndigal bàyyi ay tere da fay nekk da ngay moo tax suñu borom fonk bakkanu doomu aadama ba tax mu wax ne euh, kenn waru koo nasaxal kenn kenn kenn waru koo faagaagal nit ki ci boppam sax amul sañ-sañu faat boppam wala mu rey boppam wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahluka bari na lool ay tegtali alquran yu ci yu ci wàcc yu ci rot ak tegtali sunna yoo xam ne su ma wax ne bu leen rey seen bopp bu leen euh, yóbbu seen bopp ci ci ci ci alkande kon jëmmi bakkan boobu rek diine dafa ñëw ngir sàmm ko dafa aw diine taxaw ca indi ca ay saafara indi ca itam yoo xam ne dana tax loola du am waaw ginnaaw ba bakkan xelum doomu aadama askan alal ba cib der yooyu yëpp soo ko boolee dana mat juróom wala mu mat juróom-benn yoo xam ne eh, dafa bokk ci maqaa maanaam maqaasidu sharia yi nga xam ne sharia dafa jóg ngir di ko di ko sàmm ak di ko aar bu dee nag jëmmi mbas ci boppam bu ñu delloo ci eh, taarix wala ci ci ci histoire siira danañ gis ne nekkul lu lu lu bees loo xam ne dañ naan guléet la rawatina buñ ñu dee wax ci biir jullit ñi ak fiñ jaar ak mbas gis nañ ni ci euh, ci jamonoy euh, xalifa bu baax bu ñuy wax Seydina Omar ibnul Xataab amoon na euh, ak ak lu mel ne ordon ak xeeti xeeti dëkk yooyu mbas amoon na fa mu siiw moo xam ne dañ ko daan tuddee ba léegi sax mi ngi ci téere siire yi ak téere histoire yi ñu koy wax taawun waas taawun bu ñu ko waxee mooy pest lay tekki moom xeetu mbas la moom itam euh, am na nag ci borom xam-xam yi nag ñuy tàqale diggante taawun ak mbas waaye euh, ñii am na ñu wax ne maanaam benn la rek ndax taawun moo moo pest dañoo bari yu niroo ndax moom maanaam bu ñëwee day rey lu baree bari te it euh, dafay dafay dafay dafay tasaaroo ñaare te te day day wàlle maanaam wàllaate wu gaaw taawun googu maanaam peste boobu dëkk bi mu amoon moom la ñuy wax amwaas amwaas mi ngi ci Falastin mi nga amoon ginnaaw sallallahu alayhi bi mu fi jógee wala ginnaaw maanam gàddaay gi bi bi gàddaay gi amee fukki at juróom-ñett ci la pest boobu amoon war a tolloog 639 ci ati tubaab peste boobu yonent bi moo ko njëkk a annoncé te ñëwagut ndax bi mu nekkee Tabuk ci ci ci xare boobu ci ci xaswa ci la euh, waxtaanoon ak benn saxaabi yu bu tedd bu ñuy wax Awf ibn Malik Eh, ne ko kaay ma limal la ay mbir ay mbir yoo xam ne yu mat juróom-benn mbir yoo xam ne su ngeen ko gisee ci jamono na ngeen xam ne dafay tegtale ne yowmal xiyaam mi ngi jege si ci biir juróom-benn yooyu nag ñett yi mu ci njëkk a tudd benn bi mooy ak génnam àddina moom sallallahu alayhi wa ak génnam àddina bi bi ñu demee ba ci atum fukkeel ba ak benn loolu xew xew bu rëy boobu xew mu génn àddina biñ bi mu noppee mu teg ci fatxu eh, al quds maanaam baytul maqdis mooy conquérir gu jullit ñi war a conquérir ubbi fi ñuy wax Jérusalem moo topp ci ak ak ak ak fa ak ak ak euh, mu ne nag bu loolu jàllee nag dana am nag ak ndee ak ndeete ci wolof li wax ndeete muutaan la ko tuddee ci arab muutaan muutaan ci arab mooy xeetu ndeete goo xam ne da daan maanaam wàcc ci ak jur bu wàccee ci jur gi jur gi daanaka lu bari da ciy faatu <coughs> mu ne nag xeetu ndeete gu mel noonu nag bu ñu àggee bu ginnaaw bu ñu ubbee baytul maqdis dana am ci biir jullit ñi waaye dana metti lool ndax lu bari ci ay bakkan dana ci lool ndeete googu nag moo tollook atum 639 moom nga xam ne mooy euh, am waas boobu fekk Seydina Omar ibnul Xataab moo nekk xalifa rachid yi bi muy xew Seydina Omar fekk na boobu ni ma ko waxee ubbi nañ Quds suba jullit ñi tàmbali am doole ci Saam waaye gis nga sëñ Sëñ Cheikh ni taxawaayu jullit ñi foofu ni mu ni mu fësi ak ni mu ràññikoo ci ngëm ak tawxiid ak doyloo yàlla ak Euh, ki ki nga xam ne mooy kilifa ak jullit ñi itam responsabilité bi ko yàlla jox ni mu ko assumé ak ni ak ak ak ci wàllu yëg-yëg bi ci wàllu taxawaay bi ci wàllu jëf ji ci wàllu yitte ji Seydina Omar dafa fekk mu jógee Madina war a ñëw visité si soldaar yi ak ak ak xëy na jullit ñi nga xam ne ñoo nekk foofu di diggante siri googu bi mu ñëwee ba jub dëkk bi am waas ba agsi dëkk bu ñuy wax sarr fa la ko dégg nga délégation jullit ñi dogalee wax ak moom ne ko ah, bu ñu sañoon day nga def ndànk bañ a agsi ndax am na mbas mu wàcc ci réew mi te mbas mi metti na lool te bu ñu sañoon daal maanaam aayuñ ko sax mu ñëw waaye dañu ko ne daal bu ñu sañoon daal nga xool ñu xalaat ci ba xam Seydina Omar daal di diisoo ni mu ko baaxoo defee diisoo ak ñi nga xam ne ñooy muhaajirun yeeg ansaar yi ñii ne ko mën ngaa dem ñii ne ko jërul ngay dem te ngaa wañu ko waat ndax mbas nangam nangam euh, sahaabi yu bu màgg boo xam ne moo kii jiite woon moo nekkoon amiru saam ci boobu jamono moo jiite woon saam gépp di eh, ku ku baax ku bokk ci al ashara al mubashara min al janna wala bil di eh, ku ñuy wax abdu eh, di ku ñuy wax abu ubayda ta amir ibn al moo wax sayidna omar ne ko mën ngaa bañ a dellu ban ngaa ñëw sayidna omar ne ko nag bi mu diisoo nag ba àggal nag xelam daal gën a màcc ci ne day delluwaat madina léegi nag waaye foofu mu xaw feewu nga teg sayidna abu ubaydata waaye comme lu ëpp ci mbooloo mi wala wala li gën a not ci xalaatam mooy ne delluwaat Seydina Abu Ubayda nag wax ko waxam yu siiw jóge ne ko ndax Omar mu Omar ndax da ngay daw ma dogalu bi yàlla <laughs> moom it Seydina Omar ne ko ah, lii lii lii nga wax day ak neexoon keneen ku dul yow waxoot ma ko tey ndax da koo fonkoon lool ndax ñoom dañoo dañoo bëggante woon soppante nekkoon ay xarit mu ne ko lii nga wax day ak ma dégg woon ko ci geneen ci ci ci keneen ku dul yow daal di ko ne dama waaw damay daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla <laughs> dama damay daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla eh, daal di koy misaal ne ko waaw boo yoroon say giléem wàcc ci aw xur am ñaari côté yoo xam ne bii dafa naat lool bii bekkoor lool ngay sàmm jur ga ci ban côté mu ne ko ci côté bu naat bi mu ne ko waaw ndax du ñaari côté yëpp dogalu yàlla la yàlla la soob bii naat yàlla la soob bii bekkoor waaye pourtant da fa bàyyi bi bekkoor di sàmm ci bi naat mu ne ko noonu la mel eh, eh, na awaas boobu suñu Cheikh dafa taarix da koy nettali nga xam ne boobu jullit ñi bi ñuy ñëw foofu toll woon nañ ci eh, daanaka fan fanweeri junni ak ak ak ak ak dégg nga lu topp ci maanaam 36 mille matoon nañ ko waaye wax nañ ne taawoon bi rey na leen ba daanaka 6 mille yi rek ñoo delluwaat Madina nga xam ne 30 mille yëpp dañoo faatu ci ci nag diir bu gàtt nag saxaabi yu màgg màgg génn ci àddina Abu Ubayda moomu ci ci ñi ci faatu la bokk. bi mu faatoo ñu fal Muaas ibnu Jabal mi nga xam ne boobu ci fanweer ci fanweeri at ak ñett dong la toll nga xam ki gën a xam ci saxaaba yi ak ci jullit ñi alxalaal wal xaraam Muaas moom it faatu ca ca kii ca pest ba doomam Abdurahman ibnu Muaas faatu ca pest ba Yazid ibnu Abi faatu ca pest boobu Alfadl ibnu Abbas faatu ca Surahbil ibnu Xasana faatu ca ak ñeneen ñu bari sax nag am na sax ñuy tudd ay Bilaal ak ay de Abu Musa al-Ashari ñu bari ñoo xam dañu wax ne ci peste boobu lañ lañ lañ lañ lañ faatu fekk na boobu ci at moomu am na crise alimentaire bu am Madina bu metti ab xiif xiif bu metti bu am Madina ci même at mi nga xam ne mooy atum fukkeelu bi ak maanaam juróom-ñett ci bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay muy 639 boobu ba daanaka judin ñi sonn loof Seydina Omar comme noonu ma daan def bu guddee day rond benn guddi muy génn di doxantu déggul ku ree ci genn kër déggul ku ngonnal déggul ko waxtaan gisul ko yelwaan mu ne waaw lu xew ci dëkk bi gis gisuma ko yelwaan dégguma ko xaqataay ak ñu ñu mu daan demee ñu ne ko ah fii kat kenn talu ko ndax biir moom su fekkee dara néewu ca kenn du tal dara kenn du tal waxtaan kenn du tal ree mu ne mu daal ni kon nag gis nga foofu mu daal ni nag jël responsabilité njiit loo xam ne dafa mat njiit daal di ubbi baytu maalil muslimin muy maanaam trésor jullit ñi génn ci alal ju bari financé jënd ci ab dund ne nañ ko séddale ñi nga xam ne ñoo néew doole boobu fekk na xiif bi métti na lool ci Madina tombeek mbas mi am ci Saam gis nga kon jullit ñi yàgg nañoo dund dund natt kon kon pour tënk rek loolu mooy li nga xam ne mënees na koo indiwaat ci xel yi ñu xam ne sallallahu alayhi wa sallam daana junjul yu yu yu xeetoog yooyu yu xeetoog mbas yu mel noonu te effectivement itam saxaaba yi dund nañ ko ci jamono Seydina Omar dundin mu métti woo xam ne waaye nag teewul seen ngëm ak seen pas-pas ak seenu doylu ndax bi nga xamee ne Seydina Seydina Omar Euh, waxtaan nag Seydina Abu Ubaydata bañ xaw a juyoo ci xalaat kenn ku ne def la la doy avant Omar di dem dafa am saxaabi bu fekkee woon bu déggoon wax sallallahu ci mbirum mbas muy Abdurrahman ibn Awf moom it bokk ci fukk yi ñu bëggalee àjjana nga xam ne moo ko Omar rek ak Abu Ubaydata ñoom ay kii lañ ay ay maanaam ay nattangoo lañ daal ci waxin bi mu ñëwee ñu nettali ko waxtaan wi mu ne ah man de loolu am naa ci xam-xam ñu ne ko lan la loo ci xam mu ne mas damaa dégg sallallahu alayhi wasallam wax ne day mbas wala pest réew mu mu nekk ku mu fa fekk bul génn waaye ku fa duggagul nag bul fa dem kon xam nga confinement bi ñu wax léegi ak quarantaine nag yooyu lislaam ko njëkk jàngale avant docteur yi tubaab yi di ko di ko jàngale di ko xam ne même système walla stratégie bi jullit ñi jëfandikoo ci am waas ba génn ca Amr ibn al moo ko def bi nga xam ne Muaz nelaw na Abu Ubayda daf nelaw ñu fal ko mu nekk amiru Sham dafa ne gis na ma gis naa ne daal mbas mii li muy bañ mooy dajaloo comme ni ñu ko waxee ci ci suñu mbas mi waaw maanaam rassemblement ndax day mel ne sawara woo xam ne bu bu amee lu koy xam rek day takk su amul lu ko xam du ko du tàkk te li koy taal mooy ko nit ñi dajaloo mu ne kon na nit ñi génn dëkk bi dem ca xeer ya laqatu foofu ab diir bu ñu ko defee diir bu gàtt rek mbas mi jeex tasaaroo rek nga Euh, ak ak dégg nga confinement gi mel noonu kon loolu ci tënk rek damay bañ a guddal mënees na koo delloosiwaat ci xel yi waaye li mu ci gën a ñor nag mooy taxawaay bi nga xam ne moom la saxaaba yi taxawoon keroog ci ci waxtu me metti woowu mooy seen ngëm gu dëgër ak seen pas-pas ak seenug dogu ak seenug dellu ci yàlla waaye nag kii seen kilifa yi nag waxtu wu nekk mi ngi leen di bàyyi xel Seydina Omar moomu jooy sax def na ko jooy bi bi bi bi ñibbee Madina yónni na mu mu gàntal ko waaye dafa jooy ngir naqar bi mu am ci ne moom mi nga xam ne da daan wax naan ak gileem sax su fakkastaloo ca iraq wala ca saam bu ëllëgee mën la ko yàlla laaj ay jullit di faatu ci sa ma taxata imaaratik sa sa suuf kilifteef loolu nekkoon lu ko metti lool kon kuy kilifa ci ci ci njabo ci biir ci biir njabootam war ngaa mel ni Seydina Omar ci am yëg-yëg boobu yëg responsabilité boobu sens de responsabilité boobu waaye xamit ne lépp lu xew sa njaboot rek su ëllëgee yow la ko suñu borom di laaj kon ma delloo la kàddu gi kon ma nga jël siwaat jërëjëf jërëjëf Serigne Fallou Bousso yaakaar naa ne laltaay gii nga laltaayee jataay bi am na solo lool kon ndekete du lu yees ndekete jullit yi moom naka jekk yàgg nañ di jànkonte ak ay jafe-jafe waaye it yàgg na no am kilifa ndax bu ñu jaawale kilifteef ak nguur bu ñu jaawale responsabilité ak nguur waaye saa bu xew-xew musa am responsabilité danañ jóg jël seeni responsabilité ndekete kon mbas tombe na ak xiif ñu jàngee ci ne li ñu njëkk a def mooy diisoo sama xel dem ci keroog ba sëriñ mun taxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di woote waxtaan ci taxawaay danañ ci dellu si ca kanam waaye it ndekete feeñ na ci fegu daa gën faju kon kii fegu du ragal day daw ndogaluk sunu borom jëm ci ndogaluk sunu borom ndax ni nga ko jàngalee sax dafa am solo barab bi naat na barab bi naatul te ñaar yëpp de ndogalu sunu borom la ndax dangay bàyyi bi naatul dem ci bu naat yaakaar naa ne kenn ku ci nekk ci ñun ci bi naat lay dem kon du daw ndogaluk sunu borom waaye boo ko dawee dangaa jëm ci ndogaluk sunu borom waaye sunu borom moo la sant nga nangu dogalam waaye it nag nga jël say matukaay yi nga war a jël yëpp nag loolu it jàngee nañ ko ci waaye ndekete lu situation métti métti métti jullit yi faw ñu am repère faw ñu am jubluwaay waaye it seen gëm ak seen pas-pas du mbas du xiif du dara moo koy dàq keroog la seen gëm gën a dëgër keroog la seen pas-pas gën a dëgër waaye wax nga fi it ne ndekete bu jullit yi nekkee ci ay jafe-jafe ndax keroog ba ñu toogee xiif ba dégguñu kenn ku yëngu ah kilifa ga jóg na daal di ubbi sàq yi solidarité day daal di feeñ foofu te loolu yaakaar naa ne day ba lay ba tey matukaay yi ngi fi wax yëpp ne moom la jullit yi jëloon ca jamono yooyu gisuñ lu yees confinement jullit yi waxoon nañ ko bu yàgg bu feebar amee bu la fekkee dem feneen mooy confinement bi quarantaine ba ba ñuy yéeg ci montagne yi kenn ku ci nekk di topp sax ruq kon lu yees amu fi waaye nag jàmbaar ji nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ëllëg Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ndax situation bu mel nii moom mës na ko fee fekk bu ko fi fekkee nan la ci taxawee woon. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh ci commentaire bi am na solo waa xam nga euh, euh, Cheikhul Khadim dafa doon yonent bi ci biir activité euh, saadi xam yi ko toppoon it doon saxaaba yi ba ni ngeen koo xamee rek sëñ Mawlana Diop wax waxee ko noonu wax ne ci ci njàlbéenu yoon wi yoon wi metti lool. buñ masaana ñëw ci moom da leen di delloowaat ci saxaaba yi eh, ngir ñu roy leen di wax ne ñooy seeni i baay di seen i maam di seen lépp ci diine maanaam ñooy seeni i royukaay ñooy seen delluwaay moo tax lépp loo xam ne lu lu wokkoon sallallahu alayhi wa sallam mu fëri sëñ bi ci waxin dana ko laal moo tax sëriñ bi moom it lu mel ne lii li daloon sallallahu alayhi wa wala mu daloon ay ay ak njabootam ci jamono mën nañu xam ne ganesi woon na ko gane si woon na ko moom ci jëmmam sax ku ne xam ne dund na lu ne dund na mbas mu ne ci ci àll bi surtout bi mu nekkee ci géej gi e, xeeti épidémie yi daan am foofu ak pandémie yi daan am ci foofu yëpp da ko daan da ko daan dund ci ci ci ngëmam ci ci ci taw xeydam ci bàyyi xel boromam waaye nag bi mu ñëwee njaareem e, la gënoon a tar nag ndax booba dafa yaatu booba booba dafa nekk épidémie wala pandémie boo xam ne ni ma ko waxee léegi bi ma koy xamle euh, dafa dajoon njaareem wala sax Sénégal gépp ndax peste peste bi fi amoon te feeñoon Sénégal ci début siècle boobu muy muy siècle bi sëñ bi nekkoon te mooy weer ay xëy na 1900 1901 yooyu pest boobu dafa yàgg ndax daanaka dem na fanweeri at ak daanaka juróom-ñett waaw ba 1938 peste bi day ñëw ak dem bi 1920 wax nañ ne metti na metti koo xam ne la ca dee bare bari la ci ay junni. ay junni nga xam ne di diggante 17 jàpp 18 19 ba 20 boobu nga xam ne sëñ baa ngi njaareem di di waxtu wi ñuy liggéey jumaay foofu rek li fi li fi maanaam peste bi euh, def ci ay ci ay ci ay jéye rek kenn xamul nu mu toll ñu ngi liggéey jumaay jumaay jumaay euh, nga xam ne kon loolu lu lu lu yéeme la waaye sëriñ bi euh, taxaw ki taxawaay bu am solo boo demee ci alminahul miskiya bu sëñ Mate Lamine Diop Dagana mi ngi nettali lu raglu moom mi nga xam ne fekkee na xew-xew yooyu day wax ne booba tubaab yee fi nekk réew mi réewum maanaam nasaraan la ci waxin nee na booba sëñ baa ngi njaareem nee na booba jamono jooju nekk jamonoy mbas waxul ne amul boobaa de comme li mu wax léegi maanaam atu mbas mi dafa ne ati ati mbas mbas mi at at yi at yu bari waaw awaamul wabaa wal wal awaamu awaamu waba ak at yi nekk ati mbas kon lu yàgg la nee na waaye booba peste bi àggoon na ci lim daan rey kenn xamul lu mu toll nee na daana xëy rey lu mat fukki nit baalu ko ëpp ci bis bi nee na booba booba booba tubaab yi dañuy gas lu ñuy tuddee ak ak ak ngaare lañ ko wax ci wala foofu ngaa ngaare lu pax mu mag ah fausse commune centre fausse commune yooyu nga xam ne Euh, daanaka duñ ko sóol sëñ bi laay xaw a ragul la wax nga xam ne dañuy def ñaare ku rek ci feebar bi dañuy jël ak buum takk ci tànk yi diir yi kenn du la laal sang ak yooyu duñ ko def xanaa jullee bu dee jullit la te nee na booba itam ñu baax ñeeg tubaab yeeg kàccoor yeeg ñëpp lañuy boole di suul ci kàmbu gi nga xam ne buñ buñ buñ suulee ba xëy na jant bi so buñ buñ buñ dugalee ci kàmb gi ba jant bi so duñ suul dañuy xaw a maasale tuuti rek ngir bàyyi ba ëllëg ngeen mën koo fecc li neen loolu diire na lu yàgg sax na lu yàgg te booba sëñ baa ngi fi sëñ baa ngi fi fi metti lool ba pest bi dugg ci biir kër sëriñ bi dugg ci njaboot gi eh, xëy na jotaay bi dadul maye ñuy ñuy tudd ay tur wala dara waaye ci biir njabootu sëriñ bi am na ci ñoo xam ne pest bi laal na leen ci taalibe yu mag yi ah, bi may waxtaan bi ma ciy gëstu maa ngi laaj sëñ eh, eh, ku ñuy wax sëñ Assane Fall di doomi sëñ Badou Sa Fall di sama nijaay fekk damaa diggoon ne Cheikh da cee am lu am solo lu mu ci jàngale woon ci bas mi mu ne ma waaw li waral Cheikh Ibra tuxoo ci quartier bi ñuy wax Madina Munawwara ñëw dégg nga dëkk si fi ñuy wax Makka Makka looyu lay Makkatal Mukarrama la ko tuddewoon nee na booba mbas mu metti mee ko waraloon mu ne man mii sama maam ju jigéen di jur sama baay di woy jur si mënu saafaal ci mbas moomu la dem Cheikh am ci moom itam ci njabootam ñu ci dem euh, waaye ci ngëmam moom Cheikh Ibra ci ni ni ma waxee woon ne saarixi Sëñ Tuubaa yi dañoo roy saxaaba yi xa moom kenn sëñ sëñ Saliou Fall mi rakkam jéem na ko convaincre ba tàyyi pour mu tuxoo foofu di Madina ngir dem Màkka googu waaye mu gàntal maanaam wane ne ko daal foo foo foo kii foo dem rek deegaa nga fa ba da koo mujj kalaame ak sëñ bi ba sëñ mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga jóge foofu te dem fee ndax foofu moo dal xeli maanaam fere yi waaw daal moo dal yi <laughs> sëñ bi nga moom itam ni mu ni mu wàccee ba fekk si eh, dégg njaboot gi ci li nga xam ne seen i masaalix la loolu itam bind la bu am solo boo xam ne képp kuy kilifa ci ci ci sa biir njaboot war nga koo war nga koo roy nee na léegi nag mu soog a taxaw foofu ñëw metti gi foo ko takk wees na ko boo boo demee ci xam nga sëñ bay jaxate sax eh, xisaam xisaam boobu maanaam bayitam yooyu mu wax naan waxal nag ci mbas mi sëriñ ñaa ngi jiyee bayit yooyu <laughs> ba mu koy def boobu ñu fi jéggi na dayoo eh, wax nañu da koo njëkk bind jóge jóge xuru mbàkke wala fi mu newoon ñëw indi ko fekk sëñ bi xaw a jàpp mu daal koy batale dégg nga docteur Xaadim Sële wax na ma sax ki nga xam ne moo ko nettali ak càllalee goo xam ne dafa jokkaloo ba ci fi fi mu jógee euh, wax wax na ko keroog nettali na ma ko wax ne kooku moo ko nettali mu mu ba ba mu àgg ci ci fi mu bàyyi ko waaye nee na bi bi bi mu ñëwee fekk sëñ bi jàpp mu mu daal fi bàyyi xasida gi bu mu toogaatee lu yàgg yëf yi mel ni sëñ bi daal waxu ci dara daal waaye mel ne da ko xaw ki kii daal ba mu ñëwal boppam nag bàyyi bu sëñ bi toog ci mbooloo yi mu ñëw daal yëkkati xasida gi waaw nga xam ne ba bayit yu xaw a raglu la yoo xam bi mu koy bi mu koy woy ba ba agsi ci ba wax ne waxal nag waxal nag ci mbas mi yow sa nit ñaa ngi jee waaw tinul ñëpp yow boo tinoo yàlla tin bu ab sàmm nee cell jur gépp jee waaw bu jur gépp jee lu muy sàmm kon nee na bi mu agsee foofu sëñ bi ne ko doy na waaw nee na foofee nag ba mu ba mu ko ne doy na nag xam naa baatu bi doy na booba fa la daanaka yi fi jaare jeex takk dal di daal di doy maanaam mbas ma daal di daal di jeex waaye nee na sëñ bi dal ne leen su su ngeen gisee eh, njàmbat yi bari woon na ña sàkku ñu def ñaan bari woon na ndax sa sëñ soxna eh, soxna far Seye Libaas am na boo xam ne bi fi duggee ci biir waa Barsaq yi peste bi ba am ñu ci laal waaw ñëw na ci sëñ bi di ko jàmbat nee na wax ko ne ko li comme li sëñ bay jaxate wax rek nee na sëñ bi muñ ne ko Fatou Mbaaru da defee ne xejju yàlla moom mooy koo xam ne lu la neex yàlla def ko mu ne ko ah Mbàkke loolu laa foogoon de mu na ko déedéet loolu de xejju bi yàlla mooy koo xam ne lu yàlla def mu neex <laughs> ne ko ne na ko kooku mooy xejub yàlla waaw ah, xoola fa muy xool rek waaw ah, te monte teewul am na ci ci ñoom ci njaboot gi ñoo xam ne bi leen bas mi dalee sëñ bi ñëw na teg ba jël loxoom teg ci seen bopp rek ñu wér jóg jóg jóg jóg doxi seen i soxla nga na ci ay xar baax waaye taxul mu nangoo intervenir ci wàllu ñaan wala wala yoo xam ne eh, bàyyi bàyyi na leen daal ba lim leen doon jàngal ci mbas mi dugg seen bopp dugg seen xol muy tawxiid ji ndax loolu wax da ne damaa bëggoon ngeen gën xam seen boroom ngeen gën a jox seen borom lim moom ngeen xam ne yàlla kenn du ko fekk ci ay atteem ak i ak i ak i ak i dogalam suñu borom lu mu bëgg lay def faalu li maa yurid te inna allah day nga yafalu maa suñu borom lim nam lim nam rek kenn kenn mënu ko ko tee def loolu rek laa leen bëggoon a jàngal moo tax bi mu demee ba nga xam ne tawxid jooju nag sax na ci xoli murid yi ñoom ñëpp ñu delluwaat ci yàlla wéetal yàlla nag ci la soo a jóg nag bind ay xasaayit daf ay abiyaat def ay tawassulaat nag wax ak boroomam nag <laughs> dégg nga mbir mi soog a jeex gis Euh, loolu da ngay ci ci ngay xamee ne sëriñ bi euh, lu ne lu ne waaye mu am leneen lu lu am solo loo xam ne da ko cee jàngale mooy ni Seydina Omar defoon bi xiif bi méttee ci Madina ba nit ñi sonn loof mu jóg en tant que kilifa joxe bind ci wàllu solidarité it sëñ bi da ko da ko jàngalewaat ci njaareem ndax euh, xisa boobu sëñ sëñ Maamoor di Mbàkke moo ma ko nettali ne sëñ Murtala bu soo ko nettali wax na sëñ Murtala Bousso moom ci boppam moo wax ne waa ko Cheikh yi ñoo ko wax ne ko bi nga xamee ne peste bi tasaaroo na ba agsi Mauritanie ba sonal leen lool Cheikh yi ci boppam dafa bind sëriñ bi leetar di ko daal jàmbat daal tawat ji ak coono yi ñuy jànkonteel ak ñàkk gu metti ga am dina sëñ bi dafa wut gaal gaal gu mag la wut def ci alal yu bari jox ko ndaw mu yóbbul leen ko sëñ Murtala nee na gis na gaal googu ci waa kër Cheikh maam Baba yi gis nga xam nga kon loo te booba jamono loola xam naa ne ku ko doon xayma ci seen waxtu wi ay millions la wala ay milliards ci ci alal ju bare bare bare joo xam ne sëñ bi ba mu koy def da koo defoon ngir yàlla ndax booba dëgg la ak njabootam a ngi fii di di kii bi sonal leen lool waaye mu am mu am lu mu leen di fàggul loo xam ne moo gën teewul sax nag ñoom ci war a dimbale mi ngi leen dimbale waaye gis nga mu yëkkati alal ju tol noonu yóbbu ko gànnaar ngir taxawu leen ci waxtu mbas ak ci waxtu dégg nga jafe-jafe loola nag euh, mooy mooy li nga xam ne rek moom la moom la moom la ak njabootam gu baax gi mu bàyyi ginnaaw doon roy ci moom yaakaar naa ne su ma ko tuddee bala ñu sëñ Muntaxa su su ma ko tuddee ku mel ne euh, Cheikh Saalix tudd ci ku mel ne Cheikh Sidi Muxtaar danañ doy sëkk exemple nga xam ne kon sëñ Muntaxa bu ñëwee ci taxawaay bi mu taxaw ci mbas bi ci wàllu ci fànn yooyu yëpp danañ xam ne kon dafa sof ci li lislaam jàngale woon démb ak bët ki démb waaye dafa sof itam ci li Seexul Xadim jàngale waaye dafa sof itam ci li way jëriñ ci yu baax ya fañ jaaroon ak dégg nga magam yu baax yi nga xam ne ñoom la wutu sëñ Saliou gis nañ fii defe naa ci atum 1992 su ma juumut mooy bi nga xam ne Sonacos dafa takk fukki million la yëkkati fukki million maa ngi koy fàttaliku boobu maa ngi Cees yëkkati fukki million jox ko état bi ne nañ koo dimbalee ñi nga xam ne ñoo loru ci ci catastrophe boobu industrielle boobu loolu di bind bu am solo boo xam ne joxe na ko sëñ Sidi Moxtaar jamono yi mbënd la woon ñu am problème assainissement mu yëkkati alal ju bari ju bari am na ñu ko xayma sax ci un milliard en alal ju bari la yoo xam ne moom la yëkkati jox ko Cheikh bas mu jox ko état ñu taxawu ci mooy néew doole yi loolu yaakaar naa ne ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na bu jotaay bi yaatu woon ñu mën koo tudd kon Cheikh Cheikh Mountakha euh, xëy na foofu laa lay joxe pour ñu jëm ci moom bi nga xamee ne yàlla dogal na itam mbas mi am avant muy wax dara wala muy joxe benn ndigal rek dafa daal njëkk a joxe li ñuy wax dars amali mooy maanaam leçon pratique ci wàllu solidarité yëkkati ñaar téeméeri million jox ko Cheikh Amadou Bachir ne ko na ko tekki loxol di nga président ngir mu taxawoo ko li lépp loo xam dafa jëm ci wàllu bas mi ci ci ci dégg ci réew mi te loolu ma ma ba mu koy def defalu ko ma murid yi rek wala dégg nga juddit ñi rek ndax réew mi la wax te réew mi ñëpp a ci waaw juddit ñaa ngi ci ñeneen a ngi ci ñeneen murid yaa ngi ci ñeneen a ngi ci kon yaakaar naa ne foofu mën nañu fee yemandi. jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Fallou Bousso tàmba amu fi xanaa kay buñ doon def nattuwaay dañu xool pas-pasu ñooñ démb ak seen gëm-gëm fa nga xam na fan la tolloon ak it seen nangu kilifteef rawatina nag boo amee kilifa gu mat kilifa sànq bi ngay dugg ci Serigne Touba da wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ko xuri dana wokk Serigne Touba. damaa mës dégg ko wax baat bu am solo amoon na xew-xew yi amoon ci àddina bi yaakaar naa mu ne sëñ Touba ku jam yonent bi sëñ Toubaay nàcc loolu day tekki ne moom bi mu ñëwee moom it moom sosul dafa sof ci lu yonent bi alayhi salaatu salaam daal def rek dox doxin woowu nga fàttali fii it jamono ju métti joo xam ne daf fekk sëriñ bi ndax peste boobu nga xam ne ay at la day dem ak a ñëwaat muy pandémie mooy loo xam ne dafa toog bañ a demati te daj fépp nag nga xam ne ku ci feebar kenn du la laal am na sax ñu yeggaan ci ne am na ci ñoo xam ne bu ñu leen mënul def dara sax dañ leen di taal fa ñu nekk ak seen bagage yëpp peste bi yeggoon na foofu te boobu sëriñ baa ngi fi nga xam ne sunu borom day jàngale waxtu wu nekk sëriñ tubaat dégg loolu waaye sëñ Fallou da nga wax lu am solo loo xam ne it war nañ koo bàyyi xel ndax danga jàpp ne waayu yàlla mooy lu ko neex sunu borom def ko mu ne déedéet ba bëggee doon waayu sunu borom da ngay fexe ba lu mu dogal mu neex la loolu bind ak takk bu am solo la solidarité bi nga xam ne feeñ na ci it ba ña doon sàkku ndimbal mu jóg ci lim bu takku di leen taxawu ak xarbaax gi nga xam ne def na ko waaye du ko jëfandikoo waxtu wu nekk ndax njàngalem yàlla lay privilégié ba mu dugg ci bopp ñi nga xam ne ñoom lay jàngal mu doog a jàll feneen waaye tere keroog ba mu nee doy na baax na mbas ma yem fa loolu it muy wane ne li ma waxoon sànq lislaam yàlla na yàgg naa am ay njiit sëriñ Tuubaa it ñëpp xam nañ ne amulug ndend ci wàllu woowu ak ci ay jël ay responsabilité bu taxawee kon bu ñu fekkee jamono yi sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér lu mel ne lu mel nii xew ñu dégg li nga wax ne noonu la fi Seydina Aliou taxawoon ci fànn yëpp ñu gis ni Serigne tubaa taxawee kon bu ñu xoolee Serigne Mountakha daanaka taxawaay boobu rek la taxaw ndax wax nga fi Serigne Saliou sànq ci solidarité wax nga fi Serigne Sidi Mokhtar ci solidarité te yemale wuñ ko ci seenu njaboot ndax l'islam mooy seen njaboot ndax damay wax ne njabootuk sëriñ Touba képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ci njabootuk Serigne Touba gu kon Serigne Mountakha bu lu mel ni xewee ci jamono ñu bëri jàpp ne lu yees la ci àddina mu njëkk a yëkkati lim bu takk boo xam ne ba tey nii kenn fekk ko ci te yaakaar naa ne tegaat na ci yeneen tegaat na ci yeneen ba bërki démb gis nañ ko mu yor xar kanam woo xam ne moom daanaka mën nañu wax ne ba mbas mi tàmbalee ba léegi mu ngi jàngale jàngale bi nag weesuwul taxawaay bi nga xam ne moom la ñooñ lislaam taxawoon démb kon dikkal ñu tuuti rek ci Serigne Mountakha bi yëf yi ñëwee ni nga xam ne noonu la ci taxawee Eh, ci biir réew mi bismillah waaw jërëjëf eh, li nga wax am na solo lool te laa doon lu bari xam nga Cheikh Mouhamadul Mountakha dafay dafay kilifa <clears throat> gu mat kilifa eh, di koo xam ne boroom xam-xam la waaye di boroom tawxiid di koo xam ne itam gëm sëñ bi itam ak pastéefam ci sëñ bi it yaakaar naa ne moom ñëpp xam nañ ko ba tax na fépp foo xam ne fu la fi la sëriñ bi jaaroon wala mu jàngale ko loola moom moo nekk mooy nekk aw doxinam ni nga ko waxee bi mm, maanaam mbas mi nuyoosee ci ci ci ci ci ci ci réew mi te mu jàngale bind boobu moo waxoon léegi te nga te nga fàttali ko muy wàllu solidarité boobu dafa wanewaat taxawaayu kilifa gi nga xam ne bu njabootam amee jafe-jafe rawatina njabootu jullit am na fu mu leen di jaar ba seeni xel ak seeni xol dellusiwaat ñu gën a am dal ci seen diggante ak seen borom su nga boo delloo ci ci discours bi nga xam ne moom la ci maanaam yi mu njëkk def la bokk nga xam ne ci la xamle lu bari ci wàllu taxawaayam ci mbas mi euh, li mu li mu njëkk a xamle li mu njëkk a def mooy laaye biir maanaam jullit ñëpp ñëpp rek en général waaye rawatina nag taalibe Sëñ Tuubaa ci ne nag lii fi gane si nag dogalub suñ borom la loolu la njëkk xam ne dogalub suñ borom la ginnaaw dogalub suñ borom la suñ borom moo ko fi indi moom mi ko fi indi nag moom rek moo ko mën a dindiwaat comme ni ko sëñ bi jàngalee woon ca peste ba ci njaareem ndax waxoon na leen lool ne leen ne leen lii kat bi maanaam jàmbat li bare ba di leen na ngeen ànd ak dal te nangu dogalu seen borom te xam ne yàlla mi nga xam ne la soob mu indi fi mbas mi moom lay sobaat mu jëlee ko fi. suñ Muntaxa ñëw bantuwaat dañ kàddu sëriñ Cheikhul Khadim googa daan ne am na ci sax beneen discours boo xam ne ci defe naa ci kore gi rek ci ci kore gi ci ci biir jumaa ji ci laa dégg sax ci laa maanaam njëkk a dégg mu tudd baatu korona moom sëñ Muntaxa nga xam da ko da ko wax lu ban ñaari yoon wala ñetti yoon wax ne maanaam corona euh, lu ko waaye wax tooñ ko lu ko waaye wax tooñ ko mu wax ju am solo ndax daan ne moom kat mbindeefum yàlla la yàlla sàkk ko wàcce ko am fu mu ko jaarloo war a am fu mu comme ni mu ñu sàkki ñun digal ñu tere ñu moom nag moom corona nag di bindeefu yàlla waaye di ko yàlla digal fa ko yàlla yem loo lay yem rek fa mu ko jaar loo lay jaar ñun kay ñoo war a seetaat suñu bopp ñun ñi nga xam ne waxtu nekk ñu ngi ci diggante dengi dengi ak sikki sàkka ak ak yu bari wax yu wax yu wax yu doy waar ak weddi ak weddi waaw mu ngoog jërëjëf gis nga kon loolu wax wax na ko waaye ci ci discours bi may wax ni bi mu bi mu bi mu bi mu bi muy laay biir jullit ñi ak rawatina taalibe yi daf cee teg da leen a xamal ne li li li war a jiitu ci ci li ñu war a njëkk def mooy jéem a dellu ci yàlla dellu ci yàlla ci ànd ak xam ak wóolu ne yàlla moom rek mooy ki mën a def lu ko soob ak lu mu bëgg te kenn du ko ci fekk laa mu àqiba li yi mooy kenn ki nga xam ne itam nag moo mën a ni ma ko waxee léegi moo fa mën a jële balaa bi kon nangu dogalu yàlla nangu àtte ànd ak suñuy xol di ko ñaan di toroxlu di dellu ci moom ànd ak dogu ak ngëm ci ne moom rek moo ko mën a jëlee loolu mooy saafara si jiitu ci li ñu war a jéem a saafara jàngoro ji loolu mooy dëgg ndax ku ne xam ne ne euh, maanaam balaa moom euh, wala wala wabaa noo ko mën a tuddee lu lu suñu borom di wàcce la te ñaan rek ko fi mën a jëlee ak tuubal yàlla ak delluwaat ci yàlla. mu daal ci tegit ne <clears throat> képp koo xam ne nag yaa ngi woote ne sëriñ tubaay sa sëriñ moom nga yaakaar. ngay woote ne ab taalibe nga li nga war a njëkk a def mooy dell maanaam wéeru ci yàlla te nangu ab dogalam roye ko roye ko lii ñu doon waxtaane léegi roy ci kibaaru awliyaa illaahi eh, saalihin eh, ci gaa yu baax yu màgg yu tedd yi nga xam ne ndax bi may nekk li eh, na am waas boobu damaa bàyyi lu bari waaye am na ci foo xam ne Seydina Muaas ibnu Jabal bi ko taawon bi di bëgg a dal te dalagu ko te mu ko ne woon ngéej ndax booba xam na li ci nekk ci ci ci tuyaaba ndax dafa fàttali ko xaadisu sayyidatna Aïcha ba ba nga xam ne wax ne dafa damaa laaj sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw li ñuy tuddee peste moom mooy lan ak it maanaam nu mu demee mu ne ko sallallahu alayhi wasallam ne ko taawoon day ab nattu la peste maanaam balaa balaa la boo xam ne yàlla da koy wàcce di ci nattu ñëpp di ci nattu ñi gëm yàlla ak ñi wedd yàlla mu ne ko waaye ñi gëm yàlla nag yërmande lay doon ci ñoom su fekkee nangu nañ ci dogalu yàlla te sàkku ci tuyaaba waaye ñi weddi yàlla moom mbugal lay doon ci ñoom daal ko ne koo ci xam ne ab jullit nga yàlla teg la natt bi nga nangu ci dogalu yàlla gëm ko nga dee ñàkk caa dee nong gi gi yàlla rek suñu borom dalay lay bindal tuyaabay ku sayit bis penk sax wax nañ ne bu ñu dekkee ñi faatoo ci peste wala ci mbas tey doon ay jullit ak ñi faatoo ci ci ci maanaam jihaad doon ay soodaaw ñee dañuy ñëw daal ne ñun kat ñoo ñii ñoo bokk ñoo tolloo daraja kon fu ñuy jëm fa la ñuy jëm suñu borom wax malaayka yi ni leen xool leen leen su ngeen gisee seeni i toqi-toqi deret muy muy muy muy muy muy muy maanaam rogalaat comme ni ko ñeeri defee ngeen foon xetuk deret yi mu xeeñ misk neex lool su boobaa na ngeen leen boole ca ñee bi maanaam malaayka yi xoolee loola gis ne noonu la demee ñu daal ne la yéen nag kon yéen soda yéen a bokk moo tax euh, ki nga xam ne dafa maanaam sa Seydina Muaz bi ko bi ko bi ko yëf yi bëgg a dal dafa dafa ne woon ngéej mu dal ko moo tax bi day taalal loxo bi di ko di di ban di ko wëlbati naan ko yow day li may ñaan yàlla rek mooy lii nga xam ne moo la dal te tàmbalee ci yow bu maanaam su ma fi nekkee ba génn àddina bu ci bu ma yóbbaalee lu tuuti tuuti ci àddina ci àddina maanaam na na yàlla rek tax su may dee naa deewaale yàlla naa naa deewaale tawxiid nga xam ne foofu foofu maanaam la ko tàmbalee dal ba ba dégg nga ni mu ko faate kon euh, moo tax Cheikh Mountakha wax ne kon euh, nañ nañ roy ci gaa yi yàlla yu baax yi nga xam ne Seydina Muaas si wax ja nee na euh, ndax taawun kat deewuk gaa yu baax la dama maanaam day rey ñu baax ñu dégg nga ñu bëree bëri ñooñu nga xam ne suñu mu ñoo ñooñu nga xam ne nag su balaa masaan ñëw ak ak nattu muñ ak nangu dogal ak ànd ak dal ak ak ak ak ak ak sukuun ne tekk ne dégg taxta qahrillah ci ron euh, dégg nga ndoteekul suñu borom euh, maanaam xitaab bi may may may kii nii may jàng ni suñu mbokkum baax di sëñ abu kebe soxna bu kebe moom moo ko tekki tënkal ñu ko ci euh, dégg nga làkku arab muy muy bii Cheikh Mountakha defoon muy lu am solo nga xam ne euh, lu lu mat a la ndax du waxtu wu nekk dañ koy soxla waaw mu tekki na nag ne ci ci xew-xew bu metti bii nag maa ngi ñaan daal di nag ñaan nag ci ki doon nga xam ne mooy sëñ Tuubaa moom Cheikh Mountakha maa ngi ñaan nag suñ borom ci njëggalam ak dégg nga yërmandeem mu làmb mbooleem ñi faatu ci mbas mii te yëkkati seen te boole leen ci soxadaaw yi nga xam ne bu ëllëgee dañuy am maqaam yooyu moo xoon bi muy jeexal mu ne nag bu ñu sukkandikoo ci njàngaleem sëñ Tuubaa mi ñu xam ne kon lu mel ni saa bu amee dellu ci yàlla rek moo ci war dal di nag daal di génn nag lim bu am solo boobu boobu ñu waxoon léegi joxe ko gis nga sànq yaa ngi koy wax nga ne nekkul ne dafa yam rek ci jox état ñaar téeméeri million waaye bi bi mu noppee woo na waa defe naa Hizbut yëkkati ay ab dund bari ci diggante ceeb ak la ci aju lépp jox leen ko leen na ngeen ko séddalee ñi nga xam ne ñoo néew doole te féete fii ci biir Touba rawatina ci banlieue bi banlieue Touba bi ak lu mel ne sancaan yeeg yooyu ndax boobu ku ne xam ne ne jamono yooyu toog nañ lu war a ne daanaka ñu ngi ci semi confinement boo xam ne kenn génnut dégg nga kenn liggéeyut dégg nga transport amut ni nit ñi gis nañ sax dégg nga yi fi am ginnaaw bi yooyu yëpp en tant que kilifa boo xam ne da ngaa yéeg responsabilité kilifteef bi la yàlla jox mun taxaa jóg taxaw ci taxawaay bu am solo boobu Euh, ba noppi fàttewulit nag ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi nga xam ne ci biir ndénkaane bi wala ci biir discours bi mi mi ngi wax naan maa ngi ñaanal suñ bokk yi nga xam ne dañoo ne ci àll bi te mbas mi laal leen am na ci ñoo xam ne bëgg nañoo ñëw mënatuñoo ñëw am na ñoo xam ne ñàkk nañ seen liggéey mooy maanaam ñi nga xam ne ñoo ne ci ci biir diaspora bi ñooñu itam maa ngi leen di fàttaliku ñi ci mbas mi dal maa ngi leen di ñaanal yàlla te di leen muñloo di leen defal ñi ci génn àddina itam maa ngi leen di ñaanal njëgalu yàlla waaye ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen liggéey ne ci ay jafe-jafe crise économique wala dégg financière maa ngi ñaan yàlla génne leen ci loola bañ mën a delluwaat ci seen i yooyu yëpp daal leen jeexale nag ne waaye nag nañu mooy ngànnaayal aji gëm te ni ñuy delloo ci yàlla mooy tuubal yàlla tuub gu sell di jàng al alquran di tudd yàlla ci ci lii nga xam ne mooy xasaayid Cheikhul Khadim ndax xasaayid yi lépp luy xeetu tudd yàlla mi ngi ci biir gis nga mu daal di joxe ndigal ñuy da nga daje ci jumaa yi ak ci jàkka yi di jàng ay kaamil di jàng ay xasaayid di def ay sarax yooyu yëpp ngir rek euh, ñaan tawassul ci suñu borom mu dindi fi dindi fi mbas mi kon daal bu ñu ko doon tënk dañuy wax ne Cheikh taxaa dafa ñëw rek jaar fa nga xam ne fa la sallallahu alayhi jaaroon saxaaba yi jaar fa waaye Cheikhul Khadim mi mu doon itam nag te mat ko sëkk nag fa mu jaaroon itam jaar faak saadi xam itam mu jaar foofu ci ci wàllu pas-pas ci wàllu tawxiid ci ci wàllu wéetal maanaam delloo ni ci yàlla ak waaye nag wàllu taxawu njabootam itam nag saa boo xamee ne nag ñoo ñoo ngi dund jafe-jafe euh, loolu kon mooy taxawaayu Cheikh Cheikh Mountakha yaakaar naa li li ñu ci mën a wax. lu bari la. waaw mu ngoog mu ngoog gis nga ko waaw surtout lu am solo lu am solo loolu ci njalbeen gi ci njalbeen gi rek la la la woo boroom xam-xam yi diisoog ñoom ne leen. na ngeen dimbale maanaam jullit ñi ak réew mi xamal leen ne leen lu mel nii bu amee faw ñu delluwaat ci texte yi jéem a xool lu ñu koy dëppaleeg li am ci la waxee ne kon wàllu jaamu yàlla moom kenn du ko bàyyi tëj jàkk ji rawatina jumaay Sëñ Tuubaa ji kenn xalaatu ko waaye li nga xam ne moo ëpp lu muy dajalay nit muy julli ajjuma yi nañ seet ni ko suñu ngir mi jàngalee ngir imaam Malik ñu jéem caa tënkoo noona ba noppi dëppale koo li ñuy tuddee ay dégg nga mesure barrière wala ay geste barrière yi nga xam ne docteur yi wax nañ ko te lislaam jàngale woon ko barki démb barkaat démb bu yàgg comme comme ko waxee léegi ñu jéem fexe ba boole yooyu yëpp kon mooy aljamaa bayna shariati wal xaqiqa te ab jullit foofu la war a nekk mooy lépp lu ñëw lu nekk nga boole ki sharia ak xaqiqa mooy jël sabab yi jël sabab yi bu ñu lee maanaam fegul takkal masque nga takk masque wax nga ko léegi gis nañ ne moom daan kaalawu fan fan ci ginnaaw waaye gis nañ ne daanaka mboolem image yi ngay xool yëpp ci àjjuma yeeg yëpp day takk masque te loolu sëñ Cheikh Cheikh Bachir wax na ko nee na sëñ Muntaxa takkul masque ngir ragal feebar ndax koo xam ne am na ci moom xam-xam bu leer ne lii sama classe gii def di ñaan mucc di saraxe ngir mucc ngir bëgg gudd fan ngir bëgg a am wërsëg moom mosu koo xalaat mosu cee def lenn ngir bàyyee boppam ak yàlla ak wakkilu ci yàlla bu dee takk masque day jàngale day jàngale mu ne kon nag jumaa ji ña fa ne di waa muxadamatul xidma nañ ko saytu ñafa nekk di fa liggéey bu ñu leen seetee seenub lim du yées lim bi nga xam ne moo wér ci ngirum Maalik ne mën nañoo taxawee ajjuma muy fukki nit ak ñaar jëm kaw maanaam ña fay liggéeyee kon nañ fexe ba ñooñu di fa julli nga xam ne diiru confinement bi yëpp dégg nga noonu la jumaa ji doxe mboolem jumaa yi nga xam ne mën nañoo tënk ci lu mel noonu loolu di wéy ñi ko mënut itam ñoom it mu ne leen nag kon na ngeen dégg nga jëfe ndigal nga xam ne foofu itam taalibe yi wax dëgg yàlla dégg ndigalal seen kilifa nangoo topp ndigal taxit gis nañ ne tey tubaa ma macha allah kaa yi wàññi ko na bu baax a baax baax te loolu ñiy yëngatu ci wàllu santé ñoo ko waxal seen bopp yaakaar ne ajuma ji paase rek gis nañ fi ay ay ay agent de santé yoo xam ne ñëwoon nañ fi bi ñu ñëwee ak ñin fi fekk ñu ne fi wax nañ ne màggal gaa ngi ñëw dëgg la ñu ngi amum tiit ak ak ak di yaakaar nangam waaye loolu lépp itam moom la mu wax mooy ne du waa Touba la ñuy ragal ñu wàll kenn xanaa kay keneen muy jóge feneen ñoo di wàll waa Touba ndax Touba moom fexe nañ ba ba aaru ba dégg nga protéger seen bopp te lépp ñu ngi ko def ci dégg ndigalal seen kilifa. ak it nag ci qiyaada rachida siyaasa xakima boo xam ne seen kilifa da koo taxawee mooy politique bu bu tegu ci sagesse njiit lu tegu ci am xel mu jub ak xam-xam ak dëppook jamono ak tënku ci njàngaleem sëñ Tuubaa mu Cheikh Muntaxa kon yooyu sëñ Cheikh ku ko doon boole ay mbir la yoo xam ne buñ ko buñ ko dajalee danañ gis ne daal wax dëgg yàlla yoonu murit naka jekk lu lu lu mas a am ci moo xam crise sanitaire moo xam crise économique day jóg jël ay matuwaayam ci njiitul ay kilifaam ba. Euh, impact bi du àgg fa mu àgg ci ci metti ak ci ci coono waaw jërëjëf. waaw waaw. Euh, yaakaar naa ne leer na naññ te ku dégg fi nga daanelee léegi say kàddu ak xool jëfinu jàmbar ji di sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér da xam ne. ñun am nañ kilifa am nañ kilifa waaye dañoo am kilifa gu mat kilifa nga xam ne ba muy jóg kenn jógul ba muy jóg di taxawu sénégalais yi di yëkkati alalam wane ne nañ ko ci roy yaakaar naa ne kenn fekk ko ci yemu ca it jël na fi lim bu takku ci pepp tasaare ko ci ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo waaye soññee ci ba boo seetloo ci jamonoy mbas mi maa ngi koy wax ak Pape Sayer barki démb ma ne ko am na ñoo xam ne dund nañ ba am juróom fukki at mosuñoo am saaku ceeb mbas mi tax nañu am ay saaku ceeb parce que bu ngeen seetloo solidarité sax dafa yokk ñi daawul dimbalee sax dañoo jóg di dimbalee nga xam ne nit ñu jóguñu sax pour sàkku ju ndimbal daf leen faa fekk te loolu ci jamonoy mbes mi la xamee te sëñ Muntaxa moo ko jàngale diisoo gi mu doon wax léegi moom la def ak boroom xam-xam yi ba jàngale Sénégal ne mbas mi mën na fee nekk ñuy dund ak moom te duñu yàqal suñu jaamu yàlla te loolu jàpp naa ne bu ci ñëpp déggoon kon jafe-jafe yi mën naa bañ a yegg si fii waaye yemu ca ndax bu weesoo kàddu yi am solo yooyu dénkaane na fi ay kàddu porte parole sëriñ Basirou sëñ Muntaxa waxloo na ko fi sëriñ Afe Ñang ci jumaa ji bayaan yi lépp ci loolu lañ ko doon def ba ci keroog ba ñuy seenu weer wi te war a um ca kumte ga sëriñ Fàllu moom sëriñ Abdul Xaadar sëriñ Muntaxa waxloo na ko discours bu am solo boo xam ne waa kër docteur yi bi ma leen ko dëgtalee dañ ma ne jox ko ñu koy boole ci soññee yi loolu nag li mu jur mooy ni nit ñi tiite woon ci mbas mi ci Afrique ni nit ñi tiite woon ci mbas mi ci Sénégal ni nit ñi tiite woon ci mbas mi ci Touba yi gis nga sëriñ Serigne Mountakha fi mu delloo nit ñi ci sunu borom xam ne moom rek booy saafara waaye nag dafay dellu siwaat li naa li waxoon damay daw dogaluk sunu borom naw Omar jëm ci dogaluk sunu borom ba jamono yi ñu ngi ko gis muy takk masque kon am nañ kilifa gu mët kilifa sunu xel mën naa dal ci wet googu léegi nag kon lan lañ war a jàngee ci taxawaayu sunu kilifa googu ak mbooloo mu am kilifa gu mel noonu lan mooy seen taxawaay ndax mës naay wax sax ne sëñ Muntaxa de man de damay wax barki démb na damay takk masque ñu ne ma lu tax ngay takk masque man ne sëñ Muntaxa moo ko digle takkuma masque ngir ragal de takkuma masque ngir keneen dama ko takk ndax sëriñ Muntaxa ko takk man leen sëñ Muntaxa bu xëyoon na kenn ku nekk yore cin lu ndaw boo génnee Touba. koo gis muy dox dafa yore ci ci lu ndaw kon ban jàngat ñu tëjee ko waxtaan wi moom lañu ñu war a jàng ñun ci bind yi nga fi wax yépp ba ci kii nga xam ne nag weddi gis bokk ca ndax yu ci bari dañu koy nettali ñu gëm ko lii nag dañ cee teg sunu bët jaaxran ba bërki démb ñu gis ko mu takk masque jëm ci bés bu mag bii te danga wax lu am solo gis nga ñi nga xam ne ñoo yore Covid bi bi ñëwee fii ba dem ci jumaa ji ànd ak waa xidma yi biñ leen waxee niñ nar a taxawaa ak niñ war a liggéeyee lii nga wax lañ wax ñun de suñu xel dal na ci Touba ragaluñ waa Touba wàll kenn waaye dañuy ragal ñeneen ñi ñëw wàllu waa Touba ndax fi ñu toll ni yaakaar naa ne taxawaay sëñ bi tax na kaa yi moom daanaka amatuñ ko ñu ngi ñaan yàlla rekk ne mu jeexal ko ak jàmm sëñ Fallou. jërëjëf amiin <laughs> macha allah jërëjëf sëñ Cheikh waaw ñaan googu amiin yàlla na ko yàlla nangu te am nañ ci yaakaar rawatina bisub sëñ Touba bi nga xam ne lu ko waay sëf attan na ko. te Sëñ Abdou Lahad daana ko wax daana wax ne bu ngeen gisee ma leen di soññ ci màggal gi dama da da maanaam dama leen a yéene lu baax lu ne te xam ne mën a lu ma leen ko waaye nag ma xam ne bisub Sëñ Tuubaa bi lu ko waaye saf àttan na ko kon nañ ko ci fas bu baax li nga wax nag ci ci bind yi nag fi nga daaneele rek foofu rek foofu foofu moo mat a taxaw te mooy ku am kilifa gu mel noonu ku mel ni seex Cheikh Mountakha nga xam ne damay wax ne yéesul dara yéesul ci benn fan ñi mu wutu ci sëñ bu mag bi sëñ Tuubaa ku ne xam ne ki mu doon waaye Cheikh Mountakha day mën naa wax ne yeesul sëñ bi ndax fa sëñ bi tegoon tànkam rek la teg tànkam man dama koy yéem ci ci lépp waaw ndax euh, boo koy xool aw doxinam ci wàllu jaamu yàlla gi responsabilité bi mu yor ni mu diise ak fi réew mi toll ak li li li li tegu ci aw loosam te waxtu julli wu ne tàmbalee ci suba ba ba ba gee moo koy jiite maanaam mbooloo mi ci jàkk ji moo xam ci këram daarul minan kër sëñ Tuubaa gi ba ca poroxaan ca poroxaan sax da ngay gis maanaam fajar gi day génn ñëw jiite mbooloo mi toog fa def ay ay kiyam ay lawraatam ba mu àgg mu sog a dugg ci biir te du tee li li ko war ci jàng waqfam alxuraanam ci wàllu xasaayit dimbale doomu aadama yi yëpp lijjanti kër gi yëpp da def kon kooku kooku mooy kilifa gi mat kilifa kon yeesu sëriñ bi benn way juróom itam ci ñi nga xam ne ñoom la wuutu fii ci toogaay bii mu toog te te te ñuy ñaan mu yàgg lool tàmbaleeg Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Sidi Muxtaar bi nga xam ne euh, mo moom de ma moom la fi kenn ku ci nekk rek ñim ñim fi ñim fi jamonoon teel la ko waroon ci seen diggante ak moom ci toppe ak nongu kilifteef ah ak ànd bu rafet ak taxawu ak jàppale lépp ku xam ne def na ko kon nag ñun ñoo ci des ñun ñoo ci des ñun nag su ma nee ñun nag mooy ñun di yi ñun ñun murid yi nga xam ne yaakaar sëñ Tuubaa war nañoo xam ne am nañ kilifa gu mat kilifa goo xam ne lépp lu mu lay digal lu baax lay doon te fekk na mu jiitu ca mu jiitu ca nga xam ne ak tarbiyatu bil qudwa lay def bala laa wax dara da koy jëf nga gis ko ba bu la ko waxee mu nekk loo xam ne lu yomb a jëfe la lu yëngal lu yomb a dégg lay doon kon euh, téye ci moom ak roy ko ak déggal ko rek te xam ne suñu njariñ dong la ñuy digal duñu tere mukk loo xam ne dégg nga suñu lor nekk lépp lu ñuy tere rek dafa fekk ne loola suñu dégg nga loraa nga ngi ca lépp lu muy digal daa fekk suñu njëriñ ngi ca waaye moom du njëriñam moom kon nag dañ ko bàyyi xel bu baax te xam ne ah euh, loolu rek am solo bi xëy na am na yeneen bind yu ci aju yoo xam ne moom it lépp day delluwaat ci aw doxinam doxinu sëñ Muntaxa ci wàllu tawxiid gi mooy ci liñ fi jot a wax lépp ci taxawaayu saxaaba yeeg taxawaayu sëñ beeg sëñ mag beeg ak ak saadi xam yeeg ba ci ba ci ba ci sëñ Muntaxa mi ndekete jullit bi rawatina taalibe bi war na saa boo xamee ne mi ngi ci jamonoy mbas wala jamonoy maanaam musiba nattu mu gën a delloo boppam ci boromam gën a aju ci boromam aju xol waaye gën a rafet njort ci bopp maanaam ci boromam sëñ Tuubaa ci misaal yi day wax ne jamono boo xamee ne yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi ci nattu yow jullit bi li nga war a njëkk a def mooy tuumaal sa bakkan maanaam bul tuumaal sa borom tu tuumaalal sa bakkan waaw mooy jàppal ne man mii li ma dal kat maa ko teg sama bopp ndax suñu borom loolu wax loolu wax ci ci alxuraan lépp lu leen dal ci musiba rek fa bi maa kasabat aydikum te sax lim leen di jéggal bañ leen ko topp sax mu ëpp wa yaafu an kathir la wax wa yaafu an kathir day day jéggale lu bari kon tuumaal sa bakkan moo gën ngay tuumaal sa borom be beneen bi ci des it mooy nga muñ lu metti métti nga muñ muñ nattu yi muñ mitit yi muñ coono yi ngir lan ixtisaaban pour sàkku tuyaaba ñeel la nga xam ne moo nekk fa yàlla ndax waxoon naa ko léegi ci xadis boobu du ma ko dellusiwaat ci hadiis sayyidatuna Aysa bi waaye it ci biir waxtaan wi itam des na ki dégg ne itam euh, nit ki wërta naagu mukk ci yërmande yàlla lu metti metti lu mu jafe-jafe-jafe suñu borom bis bis dana ñëw mu andi euh, mu amaana mu indi ak ak ubbeeku mu indi fajug aajo fi neen gis gis nañ yi fi jàll ni mettee woon ak lim yóbbu ci luy wéy la waaye luy jeex la xam naa suñu seex daal ku ko doon topp bind yi mën naa bari lool bi mu mujj rek mooy ñu xam ne it na ma nattoog balaa kenn waru koo def sabab ngir maanaam mooy yàlla ci naagu ci yërmandeem loolu waxoon naa loo maanaam lépp loo xam ne lu lu lu lu luy nidu naagu la ci maanaam yërmande yàlla wala ñaaw njort ki sa borom wala sax nag nga bàyyi fa yàlla tiit tax wala jàq tax nga bàyyi fa yàlla dem di dimbandikoo leneen lu dul yàlla wala keneen ku dul yàlla am na ñoo xam ne bu ñu amee jafe-jafe li ñuy njëkk xalaat mooy maaman yi mooy dem ci ak njabar moo mooy dem ci ay gisaanekat mooy dem ci yu mel noonu loolu itam bokkul ci tawxiid bokkul ci Sëñ jàngale saa bu ñëwee rek dellul ci yàlla rek ñaanal yàlla toroxlu yàlla sàkkal sa rax tuubal ba noppi it na nga bañ a ŋàññ it nag mbas maanaam nattu kenn du ko ŋàññ sëñ sëñ Muntaxa wax na ko nee na maanaam corona lu ko waaye wax tooñ ko mooy kon bu ko kenn ŋàññi <laughs> bu ko kenn ŋàññi ndax moom maanaam loo xam ne yàllaa ko sàkk rek ba noppi digal ko itam nag fam ko yem loolu yem euh, kon loolu lépp dañuy delluwaat rek ci liimaan ak tawakkul rek loolu daal mooy wax ji jullit daal li mu war a taxawe ci maanaam jamonoy nattu ak jamonoy mbas mooy ni sëñ Tuubaa taxawe woon bi mu bi ko yàlla tegoo tegee na bi metti ci géej gi mooy wane ngëm yàlla gu mat sëkk waaye wane itam nag ak tawakkul gu mat sëkk loolu moom suñu diggante suñu borom waaye suñu diggante ak suñu kilifa nag mooy topp ak wormaal ak weg ak liggéeyal ak diglu loolu moo ñu war suñu diggante ak Sëñ Muntaxa nañ koy diglu nañ ko weg nañ ko wormaal nañ ko topp te te nag ma jox ko li moom buñ ko defee rek jàmmay am xéewalay am barkey am naataangay am muccay am tawféexay am yàlla nañ ko yàlla defal te yàlla yàggal ko fi lool ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi yëpp xam naa di jégalu lu baax baax di sant ñëpp rek di dégg nga di leen ndokkeel bu baax itam nag ci màggal gi di ñaan yàlla rek mu nangul ñu te waxtaan wi itam ñu koy wax ñu jariñu ci waaye képp ku koy déglu itam nga jariñu ci lu ci dëngi rek ñu jégal ñu ko te xam ne xëy na gàtt àlluwa rek ak ñàkk mën a leeral lu ci jub itam ñu sant ko yàlla ak baaxu Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Sëriñ Fallou jataay bay xat rek waaye boo wéyoon di waxtaan ba ngoon it dañ lay déglu nga xam ne euh, lépp xajul ci biir sax ndax am na ponk bu am solo bu ñu fàtte ci taxawaayu sëñ Muntaxa yi mm-hmm. fàttu ñu sax ndax na ci yoo xam ne mm-hmm. lépp mënee su ko wax mm-hmm. ndax fii ci Touba képp la ay nit feebar ñu kaarantal leen keneen yor leen ku dal état bi ñoo yaay yor sa bopp sëñ Muntaxa mboolem kër yi nga xam ne dañ leen daan quarantaine dem na ba yegg ay cent quelque sëñ mu moo leen yoroon ab diir woo Touba ca kanam dénk leen ko nga xam ne Touba képp moo fi yore ay nit ñuñ quarantaine ba amatul kuñ quarantaine te loolu buñ ko doon xayma ci lim dugal ko ci loolu mu tàmbale woon ci 200 millions yi kon taxawaayam yaakaar naa ne amuluk dend kon lii nga wax rek ñun waruñoo def dara lu dul topp ko rek waruñoo def dara lu dul dégg ko ndax moom dafa ne woon sama kilifa dama koy bàyyee boppam bàyyee ko sama bopp ku am kilifa gu mel noonu nag yaakaar naa ne topp ko ndam rek la lay jox te yaakaar naa ne siggil na lislaam waaye sigil na yoonu murit ci taxawaayam ci mbas mii nag ba ñooñ état ñëw di ko nangul loo xam ne xalaatuñ ko nangul keneen loolu it nañ ko bàyyi xel bu baax a a baax baax nangul nañ ko loo xam ne xalaatuñ ko nangul keneen li tax ñu nangul ko ko nag dañoo xam ne moom daf leen di dimbale ci lii ñuy xeex waaye du leen dugal mukk di leen sànq ci lii ñuy xeex kon ñu ngi sant jëpp di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak wér di santit waa bi di ko teg ba tey ci loxol Serigne Abo mu santal ñu bokki taalibe yépp di ñaanal boroom penc bi mu yàgg fi te ànd ak wér am na yeneen jataay ak yeneen i borom xam-xam fii ak ñu jëm ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm jërë ngeen jëf Teşekkür ederim.